Euh, débat boo xam ne dafa génn ci seen euh, parti bi. ci secrétariat exécutif bi Abdou Mbow. qui est un souteneur de Ablaye Daouda Diallo moom wax na argumenté lan moo tax président war a tànn Ablaye Daouda Diallo mu ne dafa war a nekk un APR authentique mu ne un APR authentique ki n'a jamais été dont la loyauté n'a jamais été mise à mal mu doon déclaration boo xam ne sax dafa dafa créer vague yu bari mu am certains à l'Alliance pour la République yoo xam ne ils ont ce ils ont ce discours là euh, am nañ sax frustration que euh, yow bokkuloo euh, ci marche conquête pouvoir u Macky mais ñu jox la ci cër biñ la ci cër ñoom jàpp nañu ne cër boobu doy na mu am ñu bari tamit ñoo xam ne jàpp nañu ne ñu tànnoon la mën na dëggal seeni chance ngeen gañe présidentielle Euh, deux mille vingt quatre bi ñaari reproche yi euh, waa euh, certains caciques de la paix di la def ñu mel ni Abdou Mbow ak ñeneen ñi am na ñoo xam ne ñu ngi koy ruumandaat mais duñ ko wax ci kaw ne affaire authentique la war a doon. appel authentique ça signifie quoi ñu ne ñi nga xam ne ñoom ñoo sos parti président bu demee bay dem. Oh, oh, daf ko war a jox ñi nga xam ne ñoom ñoo fekkee sosum. xam nga xam nga ak loyauté. xam nga lu ñuy waxtaanee ci biir. ci biir nekk. bàyyi man maa ko génne man maa jël responsabilité génne ko. <laughs> xam lu ñuy waxtaanee ci biir néeg du lu ñuy waxtaanee du ñuy wax ci mbedd. maintenant c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats en interne li ma la wax léegi aussi mooy li nekk. Hmm. mooy woowuma kenn man nee la bëgg naa nangam jàppale ma ci par contre ñii wax ni yow la yow la bari na. sincèrement mais man musuma taxaw ci poste bi ma nekk wala yi ko jiitu wala euh, présidence yi ñuy wax taxaw ne bëgg naa lii wala bëgg naa la lii ça je ne l'ai encore fait. mais le débat autour de APR defal ndànk defal ndànk mu ñëw. APR bari naa ci ay xarit lool. ñoom ñëpp ci yéene naa leen jàmm bi ma leen ne léegi j'ai pas de problème de personne. loolu aussi bëgg naa nga nangul ma ko et c'est vrai que APR ñoom ñëpp ñi nga tudd ñëpp awma ca kenn euh, xar ma yàlla maintenant ku nekk boo bëggee am nga peut-être possibilité wala am nga sañ-sañu lal sa stratégie pour am xam nga da ngay dégg ni Amadou Ba am na ay nitu boppam gis nga ko cité bari na nag ay soppe c'est la vérité est-ce que gis nga ñu ne diw ak diw ak diw ñu ngi ànd def ni nga tuddee léegi ki nga tudd qui est mon frère par ailleurs Abdou Mbow. est-ce que mën nga tuddee noonu keneen ci biir APR koo xam ñu ngi àndee noonu muy dugg ci nit ñi di wax Amadou Ba ni Amadou Ba nali pourtant j'en ai les moyens en tant que premier ministre ku ma woo di ma wuy si ku waxal di nga wax ak man. am na loo xam ni man jàpp naa ni waruma ko def te duma ko def quelles que soient les circonstances ça c'est le premier point le second point quand on parle de loyauté non d'abord APR authentique AP non débat boobu mais non je pense que l'APR est un grand parti c'est vrai le président a construit une grosse machine c'est vrai mais APR fi mu nekk nii ce qu'on doit faire mooy renforcer ko et je pense que tout le monde a sa place à l'APR xam nga may mën président dafa def loo xamante ni lu am solo la il est à la tête du pays depuis douze ans onze ans jëm douze ans sos na APR je pense en 2008 yor Benno mais may mën a Benno kenn manqué wu ci mais bu ñuy wax réew c'est l'APR dans son ensemble qui peut conquérir c'est Benno dans son ensemble qui peut conquérir c'est APR et Benno réunis ñoom ñoo war a conquérir mais doyul il faut autre chose c'est-à-dire gën a yaatal maintenant c'est vrai bu ñu nekk ci situation yu mel nii bu nit ki jekkuwul wala bu nit ki jàppee ni kii am na avantage bu mu amul am na ñoo xam ni ni ñu koy gisee moom mooy jéem yàq mais li am solo moom mooy nit ki boo nee nii la mel da ngay indi say élément de preuve justifié wax naa la léegi nii liggéey naa depuis plus de trente ans j'ai eu toutes les promotions sans faire de la politique il n'y un seul fonctionnaire de l'État bu am ay promotion ba yegg ci bopp administration te amoo compétence amoo loyauté de promotion politique le président m'a fait honneur dugal ma ci partem ma am ngor bu day ni dans le parti j'ai jamais essayé de démarcher quelqu'un pour sama intéret personnel maintenant c'est vrai il arrive que nit ñëw seet ma wax ma wax ju rëy ah Amadou dama bëgg ñu ànd defar suñu groupe parce que yow boo defee nii en deux mille vingt quatre deux mille vingt huit deux mille vingt neuf. donc bloc d'influence bi ñu lay prêter amul. en fait ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens ñoom ñi ñi nekk fii ñëpp ñi la wax APR PDS en tout cas les acteurs politiques ku ci nekk am na ay jaar-jaar yu bari Sénégal la nga fi mën a def. la mooy ay bloc d'influence maintenant nit ñi mën la gis euh, am lu ñu naw ci yow ce qui est important à mon avis c'est d'abord la confiance du président de la République ce qui est important fi dëkk bi fi ñu toll nii c'est que lépp loo xam ne day jur rancœur lépp loo xam ne day jur xaajale ñu moytu ko njabootu ki Sall dafa war a doon njaboot bu uni njabootu Macky Sall dañoo war a roy ci moom yaatal njabootuma Macky Sall buy dem à la conquête du pouvoir pour mettre en œuvre sa vision on doit aller unis. xam nga euh, sur la question de la de la loyauté président de la République dafa jël nguur gi mu bàyyi la diiru ñaari at. Oh. nga nekk impôt et domaine yow yaa mené la réforme du code général des impôts. Oh. nga pare ci 2014 mu indi la gouvernement teg la fa ba 2020. Hmm. mu delloosiwaat la. def la premier ministre euh, lan moo tax malgré tout ce parcours vous avez eu ñenn ñi euh, bu ñuy wax pourquoi euh, tel ou tel devrait être candidat ñuy teg comme point d'orgue une question de de de loyauté. mais non il ñu ci bëri ci li ma jàpp dañuy xool loo xam ne ça peut faire mal ñu wax ko tant les gens ont toujours pensé que j'avais des problèmes avec un X ou un yàgg naa wax ni mën nga ma vaar. ñooñu doo ci woo kenn mais da la maag diw am nañu problème bii ba sàngam wala ba sàngam maintenant nit ki mën nga ko euh, gis am loo xam ni mën na la gêner ci moom wala am loo xam ni mën na la neex ci moom mais c'est pas ce qui est important mais li nga xam ni xam naa ko te bëgg naa ko xam naa ko mooy man awma xaar ma yàlla ak kenn awma sax jot boobu je ne pense même pas aux autres à leur faire du mal la may ñaan bés bu nekk mooy lépp lu may am yàlla naa ko mën a bokk ak ñëpp